ku la bari xam foofu Serigne Bara. mbokk jullit yi mbokk talibe yi ci ndigalu Serigne Mountakha Mbacké xalifa général des Mourides Serigne Ahmadou Makhtar xalifa Darou Khoudoss Serigne Moustapha Matiley xalifa Serigne Bara Serigne Moulay Mbacké xalifa Serigne Balla Thioro Serigne Khadim Mbacké xalifa Serigne Cheikh Thioro comité de pilotage journée culturelle et religieuse Cheikh Mouhamadou Lamine Bara Mbacké ñoo am mbégte di leen digal 16e édition bi ñuy amal samedi ñaar fukki fan ak juróom ci weeru novembre 2023 ci Cissas ren ñu tuddee ko Serigne Cheikh Thioro ak Serigne Balla Thioro. Modou Lamine Modou Lamine Mbacké jaraway baar bilaay baaray Modou Lamine Modou Lamine jaraway baar jaara ci gis muy Bamba baay bilaay baay Basiiro Sëriñ Basiiru baaray maamam Basiiru baaray maamam Sëriñ Basiiru salaamaaleykum mbokki julli di rawatina mbokki taalibe yi bu ngeen xoolee wàccaay wi nga xamante ne moom la ñuy waajal la grande journée culturelle et religieuse Cheikh Mouhamadou Lamine baara Mbacké xam ne daanaka bis bi yegsi na samedi bii ñu jëm lay doon mooy le 25 novembre incha allahu rabbi fii ci CICES nag lay xewee ko xool siège yi nii ñu ko rangele xool baas bi dégg njàngum xaside yii xam ne fii ñu jëm daanaka yegg si nañu fa mooy samedi bii ñu jëm incha allah à partir de huit heures lay commencé ku yéex do am place ndax amul ay carte entrée libre la waaye nag alhamdulilahi rabbil alamin bi nga xamante ne coordinateur bi teel naa waajal li nga xam ne mooy bâche bi ay teel naa waajal li nga xam ne mooy organisation bi ngir lépp teel a yemb waaye Cheikh Mamadou Bachir moom Serigne Khady Awa Ba gaynde baara jëf ji na lool waaye liggéey bi am na solo lool ndax comité de pilotage bi nga àndal muy liggéey bu rëy bi ñu ànd ak yow di ko liggéey di koy xool bis bii xam ne nii ñu ko waajee nii rek la baaxee ndax ku xool xool la saisi xool bâche bi ndéggum njàngum xaside yi xam ne daanaka bis bi yegg si na ci Mourtala Tawfekh Production yaakaar naa ne bis bii ñu jëm muy bis Cheikh Mamadou Lamine Bara samedi lay doon ku yéex yaakaar naa du am place na gars yi teel a ñëw teel a génn ñëw dugg ci biir base bi ndax amul carte te nag ku ñëw rek da ngay dugg ku ñëw dugg la amul carte dama bëgg insister pour ñu xam ne bisub Cheikh Mamadou Lamine Baara amul carte te sëñ Baara nag ku ne dégg a woy wiñ ko woy sëñ Baara faj aajo moo ci gën a gaaw lu mu wax ne waaw day fal di folli ci lu gaaw mat naa ragal ci xarnu bi kon ku bëgg sa aajo faju ñëwal ci bis Cheikh Mamadou Lamine Bara mu faj suñuy aajo ñun ñëpp ci barke Cheikh Ahmadou Khadim kon bis baa ngoog le 25 novembre incha Serigne Cheikh Mbacké Dia. waaw El Hadj Seydou jërëjëf bis bi ñëpp na nañu tàmbali na la Mourtala bég nañu lool noo ngi ci bis bi nga xam ne moom la ñuy waaj muy le 25 novembre suñu critère Cheikh Mamadou Lamine Bara waaye bis bi tàmbali na. ndax fu nekk bokk jullit yi ñu ngi fay jógee di ànd ak sëriñ bas bis bi ku ñëw nag gis ni baas bi demee xam ne lépp tàmbali na sëriñ bi nag da koo tàmbalee ci alquran ak xasaay ndax alquran mooy lépp ku xam sëriñ baara mi ñu defal bisam bi xam yitteem ci alquran xasida yi nga xamante ni sëñ baara bind na ko dafa méngoo alquran sëriñ baara taalib na teero yu mag Tibyaan ak Saad Labraari ak Bunyaana kooku mooy Cheikh Mouhamadou Lamine Baara léppam xam-xam la borom yaa hadiyan borom hadaytani yaa hadiyan alamtani saqaytani kasa safa rabbaytani kooku Cheikh Mouhamadou Lamine Bara jël ñoo xam ne dafa na ren ñooy samay invité d'honneur ku mel ne Serigne Mahmoudan moom Cheikh Abdoulat ubaydi rabbi wa ibni cheikhi Cheikh Abdoulat ak kii nga xam ne mooy Serigne Moustapha Lakaram moom Serigne Abdou Lakaram jàmbaari Cheikhul Khadim ak kii nga xam ne mooy Cheikh Ahmadou Kara Mbacké Noreyni général Cheikhul Khadim ak kan Serigne Sidi Ahmed moom Alaaji Abdoul Si daa baax mu Sida Si Malick ak kan suñu xalifa mu baax mi moom Baye Niass ñooñu la wax ne ñooy samay invité d'honneur kon bis bi yaakaar naa ne Tivaouane moo ngi waaj Ndiassane ñoo ngi waaj waaye ah ah ñaseen yi ñoo ngi waaj laayeen yaa ngi a ngi waaj ndax rabbana innal wara tadarahu li awliyaay kamal li asmahu ya rabbana إليك يا رب الورى يا ربنا يا ربنا يا ربنا فكلنا وجلنا لطفا وأمدا يا أحد يا من تعالى لم يكن كفنات تعرف نتير مكتبينا سعادة الأبرار ومنور البنيان taalim la diiru yu maktabinaaw saadatul abraaru ak munawirul bunyaan sakku ku mel ni Mama Njaay bunyaana muy jooro sakku ku mel ni Mama Njaay bunyaana muy jooru bisu fanaane jàng gaaya sakku mel ni Mama Njaay bunyaana muy jooro Serigne Bara gaay waaro ay Serigne Bara Mbacké amoo morom ci soodaan amoo morom ci bi daan Serigne Bara yaay la miinam xarnu bee Serigne taalif na téere yu mag muy tibyaan munawwirul bunyaan xës dëgg Cheikh Mamadou Lamine Bara la taalif na téere yu mag tibyaan saad labraar ak bunyaan ak yeneen téere yoo xam ne xamuñ ko yoo xam ne Serigne Bara moo ko taalif muy busraaka yaa ardi Touba léegi maam Cheikh Mbale barki démb la ma ko jox busraaka yaa ardi Touba ak leneen ak leneen yoo xam ne lépp sëñ Baara moo ko taalif képp koo xam ne nag jàng nga tuuti boo xoolee taalif sëñ Baara dafa nuróog taalif te taalif Cheikhul Xadim waaye jàngal Munawwir Bunyaan Alaaji Seydou kon daal Cheikh bis Cheikh moom la Lamine Baara ngoog <laughs> le cinq lay doon muy samedi bii di ñëw te sëñ Baara la ñu wooteel te sëñ Baara mi ñu wooteel ku ñëw mu fat la te sëñ Baara ku mu fat doo fanaan biti wasalaamaaleykum bis ba ngoog samedi bii ñu jëm la le 25 incha allahu rabbi bis ba ngoog 16e édition journée culturelle et religieuse Serigne Bara Mbacké samedi ñaar fukki fan ak juróom ci novembre 2023 ci 6